الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala sant gu wér bu méngoog màggaayam ak reyaayam ak kàttanam ñoo ngi julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom ak saxaaba yi di ñaanal képp ku jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad ak saxaaba yi fa ñu jaaroon tawfiq ak njub ginnaaw loolu mbokk yi niñ leen ko waxe woon mooy ji jéem ci sunu kàttan ak sunu xam-xam fi mu yem jéem a waxtaan ak yéen ci tomb boo xam ne ci jamono lu war a yitteel nit ñi la lan moo tax mu war a nekk tomb boo xam ne dafa war a yitteel jullit yi mooy dafa aju ci seen dund te duñu mën a nekk ay jullit yu wér ci seen diine tomb yi dañ koo xam mu leer ci ñoom ñu mooy te ndik ko ndax lor la kéeféer la weddi yàlla la ku xool diine lislaam ci pas-pasam ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni gi bu ko yónni mu ñëw leeral pas-pasu islaam leeral diine ji ba mu leer ci mbooleem wàll yi dana yëg ne islaam dong mooy diine ju mat islaam dong mooy diine diine ju rafet diine ju wér ci mbooleem santaaneem ci mbooleem ay digleem waaye ci mboolem melokaanam moom diine lislaam su boobaa nag waaje nga xam ne moom moo doon seetlu lislaam noonu gis wéram gis rafetaayam gis mbaaxam gis taaram ci ay santaaneem dana dolleeku dolleeku gu wér dolleeku gu leer ne islaam mooy diine ju wér diine ji nga xam ne moom la yàlla tànn pour mu musal doomu aadama ci kaw suuf ci réer ak ci bokkaale ak ci weddi yàlla tabaraka wa taala mbokk yi diine lislaam mooy diine ji nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moonu ko tànnal ngir mu musal ñu ci réer benn ngir mu musal ñu ci sirk bokkaale ngir mu musal ñu ci ak kéeféer kéeféer goog nga xam ne day soril doomu aadama borom bi tabaraka wa taala day mab bépp xéewal bu yàlla defaloon doomu aadama loolu moo tax yàlla di ñu ko moytandikuloo mbokk yi ku xool bu baax a baax pas-pasu islaam dana gis pas-pas bu màgg bu rëy pas boo xam ne pas-pas boo xam ne yàlla tabaraka wa taala la doomu aadama di gëm ci pas-pas bu leer buy kaweeloo doomu aadama di ko jegeloo borom bi di ko yóbbu ci yaatuwaayu ngëm yàlla doomu aadama bi yëg ne yàlla am na yàlla mu màgg mi yëg kàttanu yàlla yëg sellaayu yàlla yëg ay turam yu rafet ak ay melokaanam yu sell yu yiw waaye nag lii lépp li muy rafet-rafet li muy taaru taaru li muy baax ak ku xool tey pas-pas yu leer yu wér yu feeñ ci jamono feeñ ci àdduna feeñ fu nekk asamaan ci suuf ci jaww ji ci géej gi ci jéeri ji yëg màggaayu yàlla tabaraka wa taala loolu lépp li muy feeñ guddeeg bëccëg yëg ne yàlla mooy soppi lu ko neex mooy def lu ko neex ci univers bi ci àddina bi lii lépp li muy leer tey ci doomu aadama yi am na doomu aadama yoo xam ne fax nañ màbb nañ dugg nañ ci kéefër dugg nañ ci bokkaale dugg nañ ci pexe seytaan seytaane moomu nga xam ne noonu la bu bir bu le bu yàlla waxoon doomu aadama innahu lakum aduwun mubin doomu aadama yi tey topp nañ seytaane seytaane moomu nga xam ne dañul di xeex doomu aadama depuis ba yàlla bindee aadama mu tàmbali xeex ba ca biir aljanna mook aadama sunu maam seytaane moomu nga xam ne moo tax yàlla wàcce doomu aadama ci kaw suuf doomu aadama tey topp ko def ko xarit seytaane tëral ko ay fiir tëral ko ay yoon gasal ko ay pax ay kàmb doomu aadama di ci sërëx guddi ak bëccëg bàyyi ngëm yàlla tabaraka wa taala doomu aadama amul lu mu faye yàlla loolu di ko bokkaale ak seytaane doomu aadama yemul ci loolu sax waaye tomb bi gën a rëy gën a bon gën a dangereux te mooy njabar seytaane daal ciy dugal doomu aadama njabar googu nga xam ne day génne jullit ci islaam da koy yóbbu ci combaxtalu weddi yàlla yal nañ ci yàlla musal dëgg-dëgg mbokk yi njabar war na ci jullit mu am pas-pas bu leer bu wér ne njabar dafa xaraam njabar dafa dangereux njabar lu islaam ŋàññ la lu islaam mooy tandikuloo jullit ñi la rawatina nag ci jamono ji ñu nekk am na yoo xam ne suñ leen ko waxee wala ñu won leen ko da ngeen di tiit wala ngeen jom da ngeen di yaakaar ne lu mel nii warul musa am ci àdduna te lépp mu ngi ci njabar lépp baa ngi tey ci àddina bi di daw mbokk yi ci jamono yi ñu nekk jullit ñi ñi ci gëmul njabar daanaka tuuti lañ su fekkoon ne jullit ñi un milliard lañ di nga ne benn milliard milliard un milliard lañ di nga ne genn wàllu milliard bi ak li ci tegu tuuti bakkat lañ wala gëm nañ njabar tey kuy ut liggéey foog nga njabarlu soo demee ba am ko foog nga njabarlu kuy ut jabar foog nga njabarlu boo demee ba am jabar nga njabarlu soo feebaree nga njabarlu boo wéree nga njabarlu poste buñ la jox nga njabarlu booy takk jabar njabarlu jabar ji njabar ñëpp njabarkat lañ tey soo moytuwul lu ñu ko yàlla musal dem nañ tey ci suñu société ba góor bu amee soxna jamono dab ko ba mu bëgg a ut keneen dana jaral ku makki kooku ñu naan aawo bi mu dem njabari ñaareel bi wala mu njabar jëkkër ji wala mu jaral ñaareel bi mu njabar jëkkër ji mu daal di bàyyi ay njabootam bàyyi aawam topp ko moom doomu egg nañ foofu tey egg nañ ci nit am liggéey ñu jabar ko mu dof bàyyi place ba def yaram mu neen di daw egg nañ ci jigéen bëgg doom sëy ak borom këram du am doom mu dem njabarlu ji pour am doom dem ci ay bàmmeel wala mu dem ci ay buxaaba wala mu dem ci ay gisaanekat wala ay seetkat pour ñu pittaawal ko pour ñu xoolal ko lan moo tax amul doom wala mu dem ci xàmb yi ñu rendil ko këpp ko deret ji pour mu am doom egg nañ foofu tey egg nañ ci ji jinne dugg ci yaramu nit wala mu laal nit nit dem ci xàmb wala mu dem ndëpp ñu koy reyal muy jóg di fecc pour jinne jooju nga xam ne moo dugg ci yaramam daa di génn tey lu kenn mënta wax ci ci jullit ñi yegg ci njabar ci gëm njabar kenn mun la ko leeral dem nañ sax ba ñoo ñuy tuddee ay xalifa général lenn ci ñoom ñu defa ne ay sëriñ lañ fekk duñu sëriñ ay njabarkat lañ wallahi alazim am na ci sëriñi Sénégal ay kilifa diina yu mag yoo xam ne ay njabarkat lañ wala sax ay xam mu ngi ci seen biir kër dañuy sangu yamuñ ci loolu de dama ne ci biir société bi fi ndaw ba fi mag lu néew ci jullit ñi ñoo dul njabar ay président de la république yu njabarlu nga xam ne biir palais sax dañ fay ut néeg boo xam ne ñu mooy néegu njabarkat yi ministre yu njabarlu ay sénateur ay imam ay xalifa général ay directeur société ci biir xeet wi yëpp ñu ci gëm njabar ñu ci gëmul njabar ba ci biir jàkk léeg nga dend ak nit mu takk ay ndomb wala ay téere ci ndiggam mbaa ci mbaggam nga dend ak moom sa mbagg di bomboog ay téere ci ko waral mooy njabar mbokk yi histoire mi ngi nettali ne njabar ca jamono bu mu tàmbalee ci histoire Haarut ak wa Maarut ñu bari tey muccuñ ci loolu ñu bari dugg nañ ci ay xarfa fuufa ay mbir yoo xam ne jaxase na leen ay mbir yoo xam ne fees na ci biir kër yi ba tas ay kër fa kam min ahla baytin shabtatat samlahum wa mazzaqa jam'ahum aka bëri kër bu njabar tas tey tasaare leen kër ga ñëpp tasaaroo di tamante ay dëmb ñaata ci ay place jàngkaay la njabar yàq ñaata ci ay liggéey kat la njabar yàq seen liggéey ñaata ci ay nit la njabar soppi seeni wër feebar feebar boo xamante ne kenn amalu ko garab semaine bi passé am na xale bu góor boo xam ne France la jóge jàng ba jeexal ñëw ñu jël ko banque bi sis benn fan la fa xëy daal di dof boobu ba léegi delluwaat mi ngi seen kër tëdd lu ko waral jabar mbokk yi ñaata siit yoo xamante ne ki leen doon takk yaakaar ne leen bu leen takkee aduna am neex sëy bi ñaari fan lay def waa ji fase lu ko waral njabar ñaata mbokk gu dog diggante ay mbokk mbokk gu yàqu ba ñu mujj nekk ay noon waxuma la noon ñu dem ba safara ba néew tëdd deret tuuru néew tëdd seen diggante ci ñoo xamante ne ñoo bokk deret mbokk ga daal di yàqu lu ko waral njabar ñaata ji ñi ngay gis jigéen ju baax joo xam ne yàq nañ ko ci njabar ba mu mujj nekk njaalookat dootul téye sërëm ñaata yoon nga gis waa ju baax joo xam ne njabar nañ ko dootul mun a téye loxoom dootul mun a téye tubéyam ñaata yoon nga gis waa joo xam ne ku baax la ñu njabar ko mujj di naan sàngara du xippi lii lépp lu ko waral mooy njabar gu tasaaroo ci biir réew mi lu ko waral mooy iñaan lu ko waral mooy fiiraange yal nañ ci yàlla musal bokk na li tax njabar tasaaroo iñaan soxore ko bokk na ci li tax njabar tasaaroo fiir gu jigéen gi jigéen ñi fiir wala ñàkk a bëgg am moroom diw am diplôme yi nga am am martaba yi nga am nga ni du toog sawet wala du la jege wala kenn du la dendal ak moom nga dem njabar ko loolu moo tax mbokki jullit yi ginnaaw ba ñu seetloo lii mu fees ci biir société bi guddi ak bëccëg ñu ngi ciy woo ba jamono yi paase woo nañ ñu ci benn barab boo xam ne ba ñu fa demee dañ leen di won duñ ko tayal lañu fa jële ci wàllu njabar kayit gii ñu leen di wan mbokk yi lépp njabar la ci biir ak ci biti ci kaw ak ci suuf lépp njabar la bii sax nit mën naa wax ne bu tuuti la su ko doomu aadama di xool lii ab docteur lañ ko defal moo tax nit ñi dañ dul xalaat nit ñi duñu seetlu ku feebar ñëw ci ab docteur ne ko dimbali ma nga faj ma docteur bi di ko faj mu koy laaj ay jafe-jafeem docteur bi wax ko mu ne ko dinaa la defal loo xam ne dina la dimbali ci sa ay jafe-jafe te moom mu ngi am ay jafe-jafe ba ñëw di faju ci docteur fajul boppam naan day dimbali docteur bi ci ay problème am dem njabaral ko defal ko ci ay këyit docteur bi wooñu di ñu ko won ci moom lañ ko jëlee mbokk yi bii sax nit mën naa wax ne bu ndaw la mbokk yi xool leen lii amaana boo ko waxee boo ko wonoon doomu aadama yi wala nga leen koy wax nii rek duñ ko gis amaana duñ ko gëm xool leen lii lii lépp mbokk yi ci njabar la bokk tey gis ngeen xool leen xaatim yi xool leen bind yiñ bind lii tey boo koy won doomu aadama yi mën nañoo waaru lii yëpp njabar la mbokk yi wala onze birabil falak moo nekk fii wala onze birabil naas moo ci nekk qul huwa allahu moo ci nekk ñu jël alquran yàlla bu tedd bu sell bu màgg bi di ko dugal ci ay njabar bindal waa ji lu toll nii nekkoon nañ ci tëdd wala nga sàngoo ko mbaa nga njaganaayoo ko ëllëg ak si biir soo yeewoo loo gis wax ma xool leen mbokk yi lii ni mu toll daanaka mën na deux mètres këyit goo xam ne mën na deux mètres deux mètres wala trois mètres ci guddaay lépp ak njabar la fees dal mi ngi nii mbokk julit yi lii ci ay doomu aadama lañ ko jëlee ay julit yoo xam ne ñu ngi dugg ci jàkk guddeeg bëccëg di julli di wuy si yàlla tabaraka wa taala mi ngi nii mi ngi nii mbokk jullit yi li il faut ñu wan leen ko il faut ñu leeral leen ko il faut ñu wax leen li ci yàllaa ko bi yonent wax pour ngeen xam ko pour ngeen gis ko pour ngeen mun koo moytandiku pour ngeen mën a am tawxiid pour ngeen mën a sell pour ngeen mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi njabar du dugg aljanna njabarkat du dugg aljanna kii njabar lu du dugg aljanna danañ yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko mbokk yi kayit gaa ngi nii ku ko soxla boo ñëwee ma jox la ko ñu ngi nii li yëpp njabar la fees daal yal nañu yàlla won dëgg ginnaaw li mbokk yi buñ leen ko wonee danañ ko lem li ci amoon solo rek mooy ñu wan leen yoo ngeen xam ne jullit ñi tey ci lii lañ toll am nay nit yoo xamante ne dañuy woote wu diine te ay njabarkat lañ nekk ci biir société bi nit ñi di leen yaakaar di leen topp naan ay kilifa diine lañ teg ay njabarkat lañ est-ce que lii ci ab kilifa diine la jóge kilifa diine goo xam ne nee na dafa gëm diine di njabaral ay nit di tàqale ay nit di rey ay nit loolu moo tax ñu ne foog ñu def ci waxtaan ci ay tomb yoo xamante ne dana nekk juróom-ñeenti tomb su heure bi jotee incha allah ñu dagg ko ba dimanche bii di ñëw ñu mottali leen ko almuhimu dinañ leen defal ci juróomi tomb thème bi yëpp juróom-ñeenti tomb la waaye tey dinañ jël juróomi tomb yi. juróomi tomb yi bi ci njëkk mooy maa huwa sihr wa maa xaqiqatuhu lan mooy njabar lan mooy dëggi dëggi njabar al imam abu jaafar muhammad ibnu jarir rahimahullah tafsirkat bu mag boobu borom xam-xam boobu nga xam ne bokk na ci ñi tafsir quran ñi firi téere yàlla tabaraka wa taala mi ngi nettali nee na am na jigéen joo xam ne yaay Aïcha mooy nettali hadis bi nee na am na soxna soo xam ne borom këram dafa fàdd woon yàgg kenn gis ko xamuñu fu mu nekk soxna si nee na ma koy wër di def ay pexe pour yu ma xamee sama borom kër fu mu nekk ba benn bis ma daal di dugg ci am njabarkat ne ko sama bokk sama borom kër moom laa gisatul xaw ma fu mu nekk ma ñëw di la jàmbat pour nga dimbali ma su fekkee mën nga maa dimbali ba ma xam sama borom kër fu mu nekk wala mu dellu si ndeke ka mu dem di ko wax jafe-jafeem ak problème am am njabarkat la soxna soosu ne ko am na lu ma lay wax de boo ko defee sa borom kër dina dellu si ci yow mu ne ko loo ma wax ma def nee na yaay Aysa bi muy nettali hadis bi nee na dama toog rek ab jigéen ñëw dugg ci man di jooy jooy yu méttee métti di ma laaj ana yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àdduna lu yàgg ndaw si kër Aysa di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ko jooy jooy yu métti Aysa nee na maa ndaw si ci jooyam yu métti yooyu ma koy nax di ko nax di ko nax ba ndaw si noppi nee na ma ñewante ndaw si ndax jooy yu métti yooyu ma laaj ko lan moo waral sa jooy yi ndaw si nag di ma nettali li ba tiit jaral ko mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj lii ma def lan la ci yàlla wax waaye mu fekk yonent bi génn àdduna mu fekk fa soxna Aysa Aysa ne ndaw si nee na ma sama borom kër moo tukki woon yàgg àll ma toog ay at gisuma ko ma bëgg a xam ci li mu nekk may wër di wër ba dajeeg benn jigéen mu ne ma boo defee lii ma wax sa borom kër dina ñëw ci yow nee na boo defee lii ma lay wax guddi sa borom kër dina ñëw ci yow ndaw si nee na ma daal di def li mu wax guddi rek moom ndaw si mu daal di may dikkal mu yor ñaari xaj yu ñuul kukk mu war ci benn bi mu daal di may digal man mi doon seet sama borom kër naa war ci beneen bi nee na ñu daal di war ndaw si war ci benn xaj bi njabarkat bi daal di war ci benn xaj bi nee na ñaari xaj yu ñuul yooyu daal leen di yóbbu ci place bu soree soree soree sori place wa bu bu biñ fa demee place bi fekk nañ fa place bi ma nga ca baabil ñu fekk fa ñaari waayu yoo xam ne ñu ngi leen wékk ak seeni tànk na seen tànk yi lañ takk ci kaw seen tànk yi lañ aj ca kaw seen bopp yi di lang ñaari waay yooyu ne leen ñoom ñaari jigéen yi lan ngeen fi ut ñu daan ne ko ñun dañoo ñëw si fii pour jàng njabar ñaari gaa yooyu ñu wékk ne leen ah ñun de fitna lañ bu leen weddi yàlla dellu leen fa ngeen jóge woon ñoom ñaari jigéen ñoo ñu ne déedéet duñu dellu ñaar ñoo ñu wékk insisté ba sonn daan ne jigéen ñi dellu leen ndaw si dellul fa nga jóge woon bul jàng njabar ndax njabar musiba la ndaw si daal di insister ne moom du dellu ñu ne ko ñoom ñaar ñoo ñu wékk demal ca furno bee nga saw ci nga xool lan ngay gis ndaw si dem ba jege ñëw ne leen saw naa ñu ne ko am nga loolu gis ñu ne ñu ne ko déedéet mu ne leen kon ñu ne ko kon sawoo ci dellul ndaw si demaat ba tiim furna bi daa dellu siwaat ci ñoom ñaar ñu ne ko ndax def nga liñ la wax mu ne waaw ñu ne ko loo gis mu ne gisuma dara ñu ne ko kon sawoo ci kon sawoo ci dellul ndax gis nga dara mu ne déedéet gisuma dara ñu ne kon defoo liñ la wax dellul ndaw si ne na may bàyyi ma daa di saw ca furna ba waaye balaa ma ci saw ñoom ñaar ñooñu jamono ju nekk buñ ma laajee loo gis ma leen gisuma dara dinañ ma wax dellul ca dëkk ba nga jóge woon bul weddi yàlla irji'i ila biladik fala takfuri fa innaka ala ra'si amrik dellul dëkk ba nga jóge yow ndaw si bul weddi yàlla sa mbir mi ngi ci sa loxo ba tey ndaw si nee na fa abaytu ñu ne ma wax dellul ca fur ba nga saw ci waaye yoon bu mujj ba nga xam ne dem na ba saw ca fara aytu farisan muqni an bi xadidin xaraja minni fa zahaba fi samaai wa gaaba xatta ma araahu nee na ba ma defee loolu gis benn gawar bu war ci fasam daa di ngànnaayoo jaaseem daa di génn ci man daa di jublu asamaan yéeg ma koy xool di ko xool ba gisati ma ma daal di ñëw ci gaa ñaari gaa yooyu yu wékk ma ni leen am na lu génn ci man de ñu ne ma am na loo gis man leen waa am na lu ma gis li loo gis ma daal leen di nettali li ma gis allahu akbar bi ma leen nettali li ma gis ne leen gis naa benn gawar fasam ngànnaayoo jaaseem génn ci man jëm asamaan ma koy xool ba gisati ma ko ñu ne ma wax nga dëgg loolu nag génn ci yow sa ngëm yàlla moo génn ci yow demal demal sa ngëm yàlla génn na gis nga kon li ñu ciy dégg mooy njabar ku koy def ku ne sa ngëm yàlla day génn ci yow teg yaa ngëm yàlla doo mun a nekk njabarkat allahu akbar wallahi hadis bi ñi njabar ñëpp waroon nañ koo jàng ak ñi njabarlu képp kuy njabar amoo ngëm yàlla yéeféer bu ñuul kukku nga ak koo mën a doon nag mbokk yi ndaw si dellu si na ci mbir yooyu nga xam ne moom la def mu daal di delluwaat ñëw dëkkam di dugg ci njabar lu nekk mu koy def ba benn bis mu daal di tiit mu rëccu mu daal dem ci yaay Aïcha di ko laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour nettali ko mbir yi nga xam ne moom la def moom la tukk ana lan moo ko ci mën a fekk waaye bokk julit yi fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu ñam fa fekk kenn mënu ko cee tontu ca la mu def ñu daal di koy bàyyi ndax ñooñu ñu gëmoon yàlla lañ ñu taxawoon yàlla la ñu daal di bàyyi mbir ndaw si mbiram ci loxo yàlla tabaraka wa taala kon mbokk yi njabar a ngi ni nekk lu torox nekk secret yu mag ci secret yi nekk jàngoro joo xam ne day rey di tàqale diggante góor ak jigéen góor ak jigéen di ko def ku wér ak ku feebar ku ñàkk ak ku am ku réer ak ku xam ku am ak ku ñàkk ñi ñëpp dañuy njabar mu nekk feebar bu bon jàngoro ju dangereux yoo xam ne tey tasaaroo na ci biir jullit yi loolu ko yàlla yërëm te mu nekk danger bu rëy ci pas-pas jullit ci individu yi ci société yi ci mboolem biir société bi mbokk yi njabar ak kéeféer ñoom ñoo ànd ana lan mooy njabar yéen jaami yàlla yi njabar mbir la moo xam ne mbir mu nëbbu la mbir mu làqu la mbir mu lawet loolu moo tax ñu tuddee njabar ndax bis ki ko def ki koy def daf koy def ci ay mbir yoo xam ne mbir yu nëbbu yoo xam ne bët du ko mën a gis loolu la njabar di tekki su ñëwee ci sharia islam nag ibnu Qudaama boroom xam-xam bu mag boobu bi mu ñuy firil njabar mu ne pas-pas la bu nit di fas am yu muy wax wala muy mocc wala wax joo xam ne dina ko wax wala bind bu muy bind wala ay jëf yu muy def yooyu mbir yooyu nag dafay jeexital ci ki muy njabar day jeexital ci xolam jeexital ci xelam andré day jeexital ci moom te du nekk direct mbokk yi kon gis ngeen njabar ci lislaam pas-pas la ay mocc la ay wax la ay bind la yoo xam ne nit ki daf koy def ci ki muy njabar su ko defee ba pare mbir yooyu daal di jeexital ci xelu xolu ki mu ko def pour ñu leeralaat ko ci làkku arab la moo xam ne dafa nëbbu mbir mu sew mu làqu loolu moo tax ñu tuddee ko njabar ndax dafa nëbbu gi mu nëbbu bët mënu koo gis loolu moo tax ñu tuddee ko njabar ci sharia islam boroom xam-xam bu tudd ibnu Qudaama nee na pas-pas la bu ànd ak ay mocc bu nit di wax wa kalaamun yatakallamu bihi wax ju muy wax aw yaktubuhu wala mu koy bind aw yaamalu shay'an yu assiru fil masxuuri wala muy def ay mbir yoo xam ne dafay jeexital ci ki muy njabar day jeexital ci xolam ci xelam ci lu nekkul direct nee na am na nag dëgg-dëggam moom njabar am na ci loo xam ne day rey am na ci luy dofloo am na ci buy feebar xoolal li gën a gaaw nga jabar sa mbokkum julit rey ko jël yàpp sànni ci géej def ci li nga ciy def wax ci li nga ciy wax ki ngay njabar dee jël sa njabar def ko ci ab rabu àll buy naaw am picc muy naaw ki nga njabar dof wala nga jël li ngay def suul ko ci suuf ki ngay njabar feebar am na loo xam ne ku góor dina ko jële ci jigéen njabar ko ci jigéen jooju kenn dootul mën a séy ak moom am na ci loo xam ne nit ki dina ko def tàqale diggante jëkkër ak jabar am na ci nit ko loo xam ne ni dina ko def tàkkalante diggante doom ak baayam ayuha nnaas i'lamu anna sihra xaqiqatuhu mawjud wa laha taasirun fi waaqii nnaas mbokk yi ñun ñëpp nañu ànd yëg ne njabar lu dëggu la lu am la day jeexital ci doomu aadama su fekkonte ne amul kon sharia islam du ko tere du ko du tëkku ki mu koy def du ko utal ay mbugal ñaata yoon la njabarkat tàqale diggante jëkkër ak jabar ak xarit ak xarit ak commerçant ak commerçant fonctionnaire ak poste ba mu dun liggéey lu tax ndax loolu lépp dafay wane ne moom am na su ñëwee ci façon njabar yi nga xam ne am na am na njabar goo xam ne day tàqale diggante ñaari nit ñiy sëy wala ñaar ñuy ànd diggante baay ak doom diggante doom ak baayam diggante ñaar ñuy sëy ñuy dencante njabar tàqale leen loo xamante ne njabarkat yi da koy def ba ñoom ñaar ñu tàqalante ay pas-pas yu muy yeew ay mbir yu muy nëbb di dimbali ko seytaane ba ñaari nit ñu doon ànd daal di tàqalikoo xaafis ibnu kasir nee na bokk na ci njabarkat yi nit ñi tàqale nit ñi ay mbir yoo xamante ne dañ koy def ba mu ja indi di janeerloo ku góor ki wala ku jigéen ki gis-gis bu bon wala muy gis ci moom ay jikko yu bon dootul gis ci moom lo neex bu fekkente nag sa borom kër neexatu la wala sa jabar neexatu la histoire day tàmbali histoire bi bu tàmbalee fitna daa di am bu fitna amee ngeen tàqale ñaareel mooy njabar goo xam ne day wore dañ lay wor wala mu la indil ay image ay janeer nga xam ne ki koy def léeg-léeg nga gis ko dafa mel ne kuy yéeg ci asamaan wala muy sóobu biir géej wala mbaam ŋaang mu ne day dugg ci biir gémmiñ gi ne ci ginnaawam fekk loolu muy def noonu dara amu ci seeni bët rek la njabar mais du yéegul fe yéegul ci ndox demul ci dara yu mel noonu tey bëri na ci biir réew mi ak ñoo xam da ngay daje ñoom ci mbedd ñu génne la kurus kurus gi di sotteeku ndox wala ñu nuyu la seen loxo di génne ndox wala ñu ne la xoolal seen loxo nga xool gis ci ay mbir fekk dara waru ko lu dul njabar njabar googu nag say bët yow mi xoole ñuy njabar rek nga yaakaar ne ñii kat nangam nangam la bët yaa loxo yaa ngi génne ndox wala ñu ngi dugg ci ndox wala ñu ngi dugg ci fekk dara amu ci loolu la ñuy wax njabaru njabar goo xam ne njabar guy war nit ki la wala mu koy indil ay image image yooyu muy gis mu defe ne dëgg la fekk dara amu ci ay bëtam la njabar ñetteel ci wàllu njabar am na njabarug dof nga xam ne kiñ koy def dañ koy dofloo ndax ay yuuram la ñuy yàq dañ koy njabar ba njabar gi jeexital ci yuur yi mu commencé di xalaat xalaat yu bon lépp lu mu yëg nekk lu bon mu fàtte lépp lu mu xamoon mu commencé di wax yeneen wax wax joo xam ne du sax lépp lu mu lay wax day tremble suy wax du tranquille loolu la ñuy wax sihrul junun mooy njabaru def mooy ñetteel ñeenteel bi sihrul xumul loolu nag njabarkat bi day yónni benn jinne ci benn waay boo xam ne moom la bëgg a njabar ci yuur ya lay yónni jinne ji su ko defee jinne ji daal di ñëw daal di yëngal yuuri waa ji waa ji commencé feebar yaram bi tàng dootul am dal waa ji perdre connaissance day mel ne ku dof di wax juróomeel mooy sihrul xawaatif boobu tamit njabarkat bi day yónni benn jinne occupé waa ji nga xam ne moom lay njabar ci nelaw dootul nelaw day nelaw rek guddi ak bëccëg wala mu yeewu dootul nelaw su ko defee muy gis ay image rabu àll ay gaynde ay bukki ay till di ko dàq guddi ak bëccëg wala ñu koy woo su fekkee dafa yeewu mu gis ay image nii ci kanamam image yi di ñëw muy wax ak ñoom wala mu gis ay nit yoo xam ne daf leen di xam muy wax ak ñoom wala mu gis ñoo xam ne xamu leen lii lépp mbokk yi ci ay façon njabar la yoo xam ne boroom xam-xam leen yàlla fay gëstu nañ ko jàng ko leeralal ñu ko pour ñun jullit ñi ñu mar ko mooy tandiku ndax mbokk yi njabar lu bon la lu xaraam la waaye dafa néew tey ñu ci mucc ci biir société bi juróom-benneel mooy njabaru feebar sixirul marab nga xam ne ki koy def tamit ab jinne lay yónni ci yuuri doomu aadama bi mu tere ko dégg tere ko gis xañ ko ay yëg-yëgam ci loxoom ak i tànkam benn jinne ji xañ ko lépp loo xamante ne lu mu xamoon la dem ba ci yuur ya toog ca yenn saa yi sax mu jural ko ngumba yenn saa yi mu jural ko tëx yenn saa yi mu jural ko muy saw fu mu toll mbokk yi lii lépp ñu wax ci wàllu njabar yaakaar naa ne dégg ngeen ko yaakaar naa ne am na ci yéen ñoo xam ne mës nañ koo gis mu dal seen mbokk wala seen xarit wala seen am di jàmm wala seen dëkkaale wala sax ñu dégg ci société bi am na kuñ ko def mu dal ko kon lu am la juróom-ñaareel mooy sihrul mahabba mooy jabar nit pour mu bëgg la bëgg a takk jigéen wala bëgg benn directeur société wala benn président wala benn nangam bëgg la nga daal di koy njabar loolu nag dafa bëri ci wàllu jigéen ak góor léeg-léeg góor bëgg jigéen ndaw sa lànk mu dem ci njabarkat yi ñu kànnaaral ko ko ndaw sa di ko topp ni xaj di toppee boroomam léeg-léeg jigéen def ko jëkkëram njabar ko boobu waa ji fayee ko weer bu dee bu ñëwee rek jël salaire am teg ci loxo ndaw si léeg-léeg nga dégg benn jigéen bu ne sama borom kër fii laa ko fas du ma ko bokk ak kenn allahu akbar loolu lépp li ko waral mooy ñàkk gëm yàlla rek am amu àdduna jiital ñu àdduna këf ñu ba ñu fàtte ne dañuy dajeeg borom bi tabaraka wa taala ñu fàtte ne ñun ay jullit lañ danañu dee dañu dajeeg yàlla ci bis boo xam ne yawma yaqumu nnaas li rabbil alamin danañ taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala mu laaj ñu mu enquête ñu ci lépp loo xamante ne ñu ngi nekkoon fii ci àdduna bu fekkee ne yow am njabarkat nga woon yéen njabarkat yu tuub leen yéen njabarkat yi ragal leen yàlla yàq ngeen société bi tas ngeen addina bi tàqale ngeen nit ñi ak seeni jabar tàqale ngeen nit ñi ak seeni baay tàqale ngeen nit ñi ak seeni liggéey seeni place yi teraanga ragal leen yàlla xam ne di ngeen dee munu leen a raw yàlla tabaraka wa taala ci suuf ci asamaan ci jéeri ci géej tuub leen yéen njabarkat yi jégglu leen yàlla seen bakkaar yu bon yi rey ngeen ay nit alal ngeen société bi dofloo ngeen ay ndaw dofloo ngeen ay mag dofloo ngeen i góor dofloo ngeen i jigéen ragal leen yàlla ngeen tuub bàyyi seen jabar gi ngeen nekk su ngeen ragalee dafa ne bu ngeen tuubee dootu leen dund na ngeen yëg ne yonent yàlla muhammad nee na man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dina la utal lu ko gën juróom-ñetteel ci façon ngi njabar mooy léeg-léeg nga gis ñu njabar jigéen fu mu toll rek muy tur deret di indisposé fu mu toll su ëmbee ëmb bin tuuru fu mu toll deret ji génn ci moom li waral mooy njabarkat bi moo yónni seytaane ci biir ndaw si muy këdd biir bi deret ji di tuuru bu dégg bëccëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu nettali loolu nee na innama hiya rakdatun min rakdati seytaan loolu këdd la bu seytaane di këdd mbàqu jigéen deret ji fa nekk di génn allahu akbar xoolal yow nga jël seytaan jël jinne yónni ko ci biiru jigéen fu mu toog rek muy tuur deret fu mu toll di ngemb di soli tubéy di takk ay sagar ci kanamam nga teg ko fitna teg ko feebar nga yaakaar ne yow loolu ëllëg ci kanamu yàlla amoo ci responsabilité wallahi munoo rëcc yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ñeenteelu tomb mooy xataru chehr danger njabar njabar danger m yalamu anna sihr min nawaqidil islam mu yéen mbokk jullit yi na ngeen yëg ne njabar dafa bokk ci li yàq lislaam te lislaam lépp lu koy yàqal ab jullit ab jullit war na ko mooy tandiku lépp luy tax jullit du nekk jullit loolu jullit bi war na koo mooy tandiku ndax boo nekkul jullit rek boo dee dugg safara ak koo mën a ne ak koo mën a àndal ak garaat boo mën a takk soo nekkul jullit boo dee dugg safara ak koo mën a nekk nag mbokk yi njabar weddi yàlla tabaraka wa taala la njabarkat day dugg safara te dootul génnati xaalidun muxalladun fi naari jahannam wallahi njabarkat du dugg aljanna képp ku gëm ne da ngay njabar boo dee dugg aljana ndax nga sa bopp borom bi tabaraka wa taala mu ngi xamal yahud yi tum mooyu nañ diine yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam diine yonent yàlla suleymaan ñu dem ci njabarkat dem ci njabarkat yi dem ci seytaane yi seytaane yi di leen jàngal weddi yàlla tabaraka wa taala borom bi ne wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleymaan ñoom yahudi topp nañ la seytaane yi doon jàngale ca nguurug suleymaan qurtubi rahimahullah ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee julit ñi suleymaan yahudi ñu ne xoolal muhammad mu ngi wax ne doomu daawuda kat yonent la woon muy suleymaan te maa kaana illa saahira nekkuloon du lu njabarkat fa anzala allahu azza wa jal wa maa kafara suleymaan walakina shayatinu kafaru yàlla daal di wàcc alquran ne suleymaan weddiwul yàlla seytaane yi ñoo yàlla waaye ñoom njabarkat yi dañoo gëm ne ñoom yahud dañoo gëm ne suleymaan njabarkat la woon waaye alquran moo ñëw leeral ne suleymaan du njabarkat mbokk yi yëg leen ne njabarkat du mën a nekk njabarkat lu dul mu weddi yàlla kii njabar du mën a nekk njabarkat lu dul du dafa weddi yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala moo ñu xamal loolu anna allazi ya'lamu as-sahir as-sihra anna allazi yu'allimu as-sahir as-sihra innama huwa ash-shayatin ki nga xam ne mooy jàngal njabarkat ak njabar seytaane la te du ko jàngal lu dul mu weddi yàlla te bala ñu lay jàngalkat dinañ la wax ne wa maa yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur dinañ la wax ne ñun kat ay yéeféer lañ fitla nañ bul weddi yàlla tabaraka wa taala mbokk yi seytaane bala muy jàngal njabar da koy weddiloo yàlla lu mel ni mu ne ko yàqal sa pas-pas lekkal lu xaraam waxal lu xaraam defal lu xaraam saa yu ko doomu aadama defee saa yu doomu aadama defee lu ko seytaane sant ci weddi yàlla mu doog a nekk njabarkat lu mel ni jullil ci deru xaj sawal ci kaamil dem ci àll dugge ko biir duus jëlal ndoxu góor binde ko alquran jëlal ndoxu jigéen binde ko alquran jëlal jigéen deret ji muy gis mbaax nga binde ko alquran wala booy julli bul jàpp bul dal ak sobe amal mani yu ba pare sëyal ak sa soxna ba pare daal di jóg julli wala demal ci jàkka ja nga saw fa wala nga dem fa àll ba yu mel noonu la doomu aadama di def ba pare su ko defee mu doog a nekk taalibe seytaane bu leen yaakaar ne ñii ngeen di gis ñu leen di bindal ay xaatim di leen bindal ay gàllaaj ak i téere ay jullit lañ ay yéeféer lañ laa wax même bu ñu nekk ay élimaan wala ñu nekk ay xalifa général ay yéeféer lañ ndax dañoo weddi yàlla ba pare taxaw ci sunu kanam di ñu nax léeg-léeg nga dégg ñu ne la rawaan du rawaan jinne la rawaan ak rabak jinneeg seytaane yépp a yem weddi yàlla tabaraka wa taala kese la mbokk yi ñu góorgóorlu ñu yëg ne njabar baaxul njabarkat du dugg aljanna njabar yonent bi taba sallallahu alayhi wa sallam xamal nañ ne njabarkat du mën a nekk njabarkat lu dul mu weddi yàlla tabaraka wa taala saa yoo weddee yàlla nag nga doog a nekk taalibe seytaan soo nekkee taalibe seytaan lépp lu la seytaane daal di sant nga daal di koy mën a def léeg-léeg seytaane sant la ne la yàqal sa fas-fas lekkal lu xaraam léeg-léeg nga dégg benn waay bu ne la naanal sàngara sàngara bi bala muy nekk egg sa fut ma soppi ko meew léegi na ngay jàpp ne man li may naan meew la fekk sàngara la parce que seytaane nax na la wala mu daan lay sant ngay jaamu yàlla di ànd ak sobe seeg sa soxna xëy fajar au lieu nga sangu nga dem noonu jàkka ja direct ndeysaan du ma fàttali mukk benn jigéen bu ma doon wax ne dama bëggoon jëkkër may wër te benn sëriñ ne ko damaa bëgg benn waay damaa bëgg nga ñaanal ma ci waa ji takk ma sëriñ bi ne ko mun naa la ci defal ñaan defal ay affaire ndaw si daal di koy sangu daal di naan daal di topp sëriñ ba bàyyi waa ji dekkee daf ko détourné daal di ñëw kër ndaw si takk ndaw si ndaw si ne ne li ma seetlu ci waa ji mooy du sangu set lu ma seetlu ci waa ji mooy dinaa fanaanoog moom mu xëy ba ñu julli fajar toog ak man ba nit ñëw toog ci saal bi di waxtaan julli tisbaar jot ma koy xool di ko seetlu mu daal di jóg julli ak waa ji tisbaar fekk julliwul woon suba sanguwul mu ànd ak waa ji julli tisbaar nee na léeg-léeg ma am fit ñu tëddee ma ne ko waa yow li nga def tey nag mu ne ma loolu du sa mbir waaye boobu xamaguma woon mu ne nag bi ma ko laajee ay nit lañ ma ne yow sa jëkkër jooju njabarkat la mu ne te nii la ma takkee man yëguma rek lu dul mu ñëw takk ma ndeke ba mu demee di ñaanlu ci moom moo tax gis nga jigéen joo xam ne du yem day wër rek lu ku mu gis dugal wax ko mbiram ku mu gis dis ko soxlaam musiba rek moo koy dal kon njabarkat du sangu set njabarkat foo ko gis day ànd ak sobe njabarkat du lekk lu dagan njagarkat njabarkat lu araam rek lay lekk loo rek lay def ndax seytaane la lënkaloo seytaane moo koy jàngal njabarkat taalibe seytaane la kenn du nekk njabarkat lu dul nga weddi yàlla bu ñëwee ci ñeenteelu tom mooy asaalibu sex kay yataawanu l jinn al kaafir ma hada saahir pour mu daal di liggéey ak moom jinne bi mën a liggéey ak njabarkat bi wala njabarkat bi mën a liggéey ak jinne ji wala seytaane bi il faut mu utal ko ay charte charte bi ci njëkk mooy an yakfura billahi taala mooy na weddi yàlla na weddi yàlla na tilimal waxu yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax njabarkat bu ngeen gis ci Sénégal muy njabar ay xaatim la leen di bindal ak ay ay ay ay ay alquran mi ngi nii ay musallas la lay bindal ay mbir yoo xamante ne alxuraanu yàlla la ciy jël di ko ci dugal boole koog ay gàllaaj boole koog ay reen boole koog yenn saa yu póon yenn saa yu sax nga nga gis ci njabarkat boo xam ne naan su neexee yàlla mu am bu naqaree yàlla mu am allahu akbar xam nga ki naan bu neexee yàlla mu am bu naqaree yàlla mu am ko ku ko xool ni ki ab jullit la yow moom war nañ laa xoolaat moo tax njabarkat li muy njëkk a weddi yàlla du yem ci weddi yàlla mais day tilimal waxu yàlla tabaraka wa taala di màggal jinneem jooju nag di ko rendil guddeeg bëccëg foo toll nga gis ay nag ay xar ay ginaar ay béy mu ngi koy càkk biirtu këram mi ngi rey te yàpp bi du ko lekk da koy séddale waa koñ bi moo tax yéen ñi nekk ci koñ yi yàpp bu ñu leen indil ngeen lekk dee leen lekk rek di ngeen lekk ba lekk seen bopp foqale rek yow yàpp boo xam ne xam nga fu mu jóge yaa ngi dëkk ak waa ji bis bu nekk mi ngi rey ku la ko lekk la gis naa koñ boo xam ne ka fa dëkk day rey bare ay fas te li garaaw mooy buntu këram mu ngi fa bind kaafiru diin kaafiru diin lu muy tekki yéen ñi jàng arab lan mooy kaafiru diin mooy ku gëmul diine loolu bind ci buntu kër gi un grand marabu kaafir day bind ay publicité ci rajo bi dafa bind ay tract affiché ko ci mbedd mi moo tax man waa Sénégal seen njullit gi ñuy woote daf ma jaaxal réew mu toll ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman ab jullit bind fi publicité yóbbu ko ci télé wala rajo daa ne kaafiru diin dëkk place sàngam di faj ay feebari nangam nangam di maye nangam di joxe wërsëg julli ñi di fa dem tax dëgg-dëgg ñun suñu société bi ah war nañ xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax a baax bokk na ci beneen ginnaaw rend yi mu koy rendil di ko ko jegeel moom seytaane bi moom seytaane bi encore day sàkku ci njabarkat bi saa yoo gisee ne pour njabaram avancer du yem rek ci di ko rendil ak di ko jege waaye léeg-léeg nga gis sax mu jël alxuraanu yàlla bi dugg ak moom biir toilette léeg-léeg nga gis mu jël loolu jigéen ñi di gis mbaax mu koy binde alxuraan léeg-léeg nga gis waa ji egg ci mbon jël kaamil ñaari kaamil takk ko ci tànkam dugge ko biir duus loolu lu ñu gis ci société bi la ay nit yu ñu xam ñoo xam ne dañ koy def nit ñëpp gis ko di ci teg seen bët te kenn du ci wax mbokk yi kon li ay mbir la yoo xam ne ci waxtaan bu njëkk bi tomb yi nga xam ne moom lañ jógoon di leen ko leeralal yaakaar naa ne mën nañoo tënk fi waxtaan bi ba dimanche bii di ñëw yaakaar naa liñ leen won wax leen ko won leen ko ngeen dégg ko ci alxuraan dégg ko ci sunna ñu won leen ko ci ay këyit ay njabarkat def ko këyit goo xam ne daanaka toll na ñetti mètre ab njabarkat bindal ko benn waay ne ko tëdd ci wala nga fanaan ci wala nga njagaanaayoo ko loo gis ëllëg nga wax ma yaakaar naa ne lii ay mbir la yoo xam ne lii kenn dootu leen ko nettali yéen yéen a ko teg ak seen bët li nga xam ne sax daanaka image bi du mën a génn doo ko mën a gis lépp mi ngi nii lii tey ab jullit ñu jox ko ko ne ko nanga ko lal sa lal nga tëdd ci guddi nga sàngoo ko wala nga muuroo ko ëllëg loo gis nga ñëw wax ma ko man man man sëriñ bi nga yaakaar ne waajooju sëriñ la fekk yaa ngi nax sa bopp bokk yi foog ñu yew foog ñu xam ne ngëm yàlla du ay caaxaan foog ñu xam ne yàlla dafa nañ ko jaamu waaye buñ koy jaamu dañ koy jaamu ci leer lu leer buñ koy jaamu dañ koy jaamu ci pas-pas bu wér yàlla kenn du ko jaamu ci ay làmbat yàlla kenn du ko jaamu ci ay foog naa ak def naa ku bëgg a tukki njabarlu ku bëgg a jabar njabarlu ku bëgg a liggéey njabarlu lu nit bëgg njabarlu loolu yal nañ ci yàlla musal mbokk yi lii lañ leen doon waxtaanal ba dimanche bii di ñëw incha allah yeneen tomb yi nga xam ne moom moo des tey juróomeelu tomb juróomi tomb yi lañ leen jox incha allah semaine bii di ñëw ñu joxaan leen yeneen ñeenti tomb yi des ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala njuumte yam ci waxtaan bi yàlla jéggal ñu li ci baax te leer ci yàlla la bàyyeekoo ñu ngi ñaan yàlla mu def suñu dégg ak topp ñu nii mbokk jullit yëpp di leen ziyaara di leen baalu ak di ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu